أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi nga xam ne yéen ñuy topp ci seen rubrique xew-xewu jamono ngeen ànd ak seen mbokk Imam Dramé ñu ngi nuyu sénégalais yi fu ñu mën a nekk moo xam senegal yi nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñu ñëwaat ak yéen ci seen rubrique xew xew jamono. xew-xew bi nag tey dañoo fa yéene rendre hommage sunu mbokku chrétiens yi nga xam ne ñu ak ñoom ñoo nekk ci réew mi waaye rendre hommage église bi d'une manière générale lu tax ñu war ñu war leen a rendre hommage dinañ ci ñëw ci biir waxtaan wi parce que xam ngeen ni dimanche bii passé dimanche su Pâques la woon dimanche su Pâques la woon mu bokkoon ci seen feet yi gën a rëy ci ñoom yi ñu gën a fonk waaye li ñu ci seetlu mooy façon biñ ko defee war nañ cee def ab taxaw seetlu parce que société nag buñ ci nekkee day baax bu nit ki defee lu baax nga signalé ni lii lu baax la comme bu nit defee safaan da koy signalé ni baaxul bu nit defee lu baax it li ngor nangu mooy nga wane ni lii lu baax la gis nañ ni ñoom seen dara àndut ak coow seen dara àndut ak bruit loolu moom kuy ab sénégalais te nekk ci réew mi te par parloo woo war nga leen ko mën a seddeel te loolu nag la ñuy xaar ci citoyenneté loolu la ñuy xaar ci ab républicain te mbokk yi loolu lu jar a taxaw la bu ngeen dégloo làbbe bi ci boppam wax na ko mooy Pape euh, François nee na adduna bi guerre yi nga xam ne am na fi tey nañ ko arrêté réew yi nga xam ne dañ leen a embargo ci lu dul dëgg ñu delloowaat leen seen àq loolu message bu fort foor la te mbokk yi diine yëpp dafa am loo xam ne ñoom ñoo ko bokk diine yëpp moral ak éthique ñoom ñoo ko bokk moom la ñuy xeex moo xam diine yi musa wàcc ñu koy tuddee al adiyaan as-samawiya maanaam diine yi jóge kaw asamaan yépp ñoo bokk moral bokk éthique xëy na am na lu mën a wuutee seen biir mooy constitution bi ni muy doxee man naa wuuti mais moral ak éthique ñoom ñëpp ñoo ko bokk mooy fexe ba nit ñi nekk représentant yàlla ci kaw suuf loolu moo doon seen combat ñoom ñëpp nit ñi nekk ambassadeur yàlla ci kaw suuf moo doon mission wu diine yi fi mos a jaar yépp fii Sénégal li ñu seetlu xam ngeen ni suñ mbokk chrétiens yi ñoom euh, ñaari branche yi nga xam ni lu am solo la ci développement réew am solo lool ci économie waaye am solo lool ci nit ci boppam damay wax ni kenn mënu leen ci bu ñu xoolee lu mel ni éducation ak enseignement mbokk yi ñaar yooyu boo ko réussir rek di tabax société bi nga bëgg tabax di nga tabax nit ñoo xam ni boo leen wàccee ci sa ci sa société dinañ jariñ seen société te gis nañ ni résultat yi gën a am njariñ ci wàllu njàng fii ci wàllum njàngum nasaraan lay wax ñoom seeni école la loolu ñëpp def nañ constat bi loolu nag dafa baax ñu souligner ko wane ni lu baax la pour ñeneen ñi roy ci ñoom parce que lu baax moom foo ko gis rek da ko war a roy Euh, boo ngeen gisee man dafa am benn seetlu bu ma def benn taxaw seetlu boo xam ni man maa ko def depuis at yi passé gis nga détournement yu metti yi ñuy dégg ci réew mi xam nga réew mi tey feebar bi nga xam ne mooy feebaru Sénégal mooy détourné alalu réew mi wala nga ñu dénk la kees nga nga këpp kees nga dem ak moom loolu mooy sunu feebar at yi yëpp moom la ñuy jàmbat depuis ca mille ba tey loolu mooy feebaru réew mi te loolu man détournement yooyu mësuma cee dégg koo xam ni dañ ni njabootu njabootu labbe bi la wala ci église bi la bokk néew ma amul waaye ku ko dégg nag ma ko wax man moo mësuma koo dégg loolu dafa baax ñi nga xam ne dañ leen fi jiiñ détournement yëpp ay turu jullit la yor loolu moom man seetlu bu ma def la ay turu jullit lañ yor waxuma ni nag ay jullit lañ parce que jullit moom am na loo xam ni doo ko def nit mën naa déclaré wu ni jullit laa ci làmmiñ waaye au fond amul comportement yi amul attitude yi te imaan moom ci xol lay nekk boo jëfee ñu soog a xam ni jullit nga kon jullit ñi ñi koy déclarer woo bari nañ mais ñi ko nekk bari waaye li ma bëgg a souligner rek mooy ñoom seen taxawaay fii ci réew mi de taxawaay bu am solo la te ñun ñi di ko wax nag ah ay imaam lañ de ay nitu diine lañ avec modestie te xam nañ am nañ chance yéer tuuti ci lislaam waaye yenn comportement yi ñuy yi ñu yonentu saay salaam jàngaloon yu ci bari gis nañ ko ci ñoom te loolu lu jara wax ci kaw la Sénégal nag dafa am chance bu rëy rëy maanaam li tubaab di wax particularité particularité bi Sénégal am mooy réew yu bari dañ ci sax ñee boo demee monde arabe ba léegi da leen a jaaxal ñu ni Sénégal nan lay amé 95% musulmans ba nopi ab chrétien di len jité loolu dafa bok ci particularité yi Sénégal am te loolu lu jar préserver la parce que cohabitation bi ñu am ñun entre musulmans yi ak chrétiens yi loolu damay wax ni nitu diiné yi war nañ ci xar sen tank tubéy état yi bu fekké ni réew mi moo leen tax di liggéey te ñom ñoom naxuñu askan wi loolu ñu bolé ko ci seeni programme maanaam cohabitation bi am entre jullit ñi ak chrétiens yi gën a dëgër bu jaree sax ñu def ci ay programme dugal ko ci école yi parce que adduna bi tey réew yi tàkk yëpp mbirum diine moo ko taal te diine nag ñëwuloon pour taal àdduna bi diine dafa ñëwoon pour indi équilibre ci société bi diine dafa ñëwoon pour indi cohabitation ñëwoon pour indi solidarité ci biir nit ñi parce que yonent bi salaay sallam mi tax ñu bind jaam yi nga xam ne moo fi indi l'islam amoon na cohabitation bu rafet ak ay juif ak ay chrétien fële ca Médine te loolu borom xam-xam yëpp nangu nañ ko ngiru Aws ak rek ku ne xam na ni yonent bi amoon na ñoom ay cohabitation yu rafet fii Sénégal it loolu la mag ñi doon noon ci yonent bi ba boo xoolee ñun ak église bi dañoo mus a am ay relation yu rafet yooyu nag yu jar di bàyyi xel la mais malheureusement suñ réew mi xam ngeen ni politiciens yi ñoo occupé médias yi ak rajo yi ba li war a ba li ñu war a wax sax pour mu jariñ askan wi duñ ko def euh, loolu maa ngi ci sàññ boroom xam-xam yi ñu gën a liggéey ci loolu parce que réew mi il faut ñu xam ni ñun nitu diine yi kenn ëpp ñu fi responsabilité moo tax ku mel ni Serigne Mountakha Mbacké ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral ko bàyyi ko fi parce que gis nañ taxawaay bi mu am di feebar bi amee bokk na ci njëkk a yëkkati deux cent million teg ci taabal ji te mbokk yi loolu lu am solo la loolu lim ñuy wan rek mooy réew mi tey fi mu toll li ñu sëriñ bi bëgg a jàngal mooy yéen nitu diine yi kenn waru leen a jiitu ci ngeen yëkkati li ngeen am génn ko teg ko ci taabal bi parce que mbokk yi ñun suñ gàmmu yi ñuy wax ak sunu ziar yi ak sunu màggal yi bu jotee sëriñ buñ fi joxul ceeb yow yaay occupé média yi ak rajo yi dañuy occupé média yi ak rajo yi ni tey àdduna bi tukki parce que dañ leen a war a jox ceeb kon tey bu ñu demee bay laaj alalu maanaam ñu dajalee alal pour jox ko askan wi li ñuy wax mooy sëriñ bu nee la nga yor na nga ko dégg na nga ko génne parce que nag bu ñu naxante man mii ab ci mara bu laa bokk famille marabu yi ñëw ëpp alal ci réew mi tey sëriñ si li ñu am bu ñu ko génne teg ko ci taabal ji def ni sëñ Muntaxa def léegi feebar bi ñu mën koo xeex ci lu gaaw parce que feebar bi ku ko bëgg a xeex di dimbali nit ñi ñu lekk naan toog seen kër nit ñi buñ lekkul naanuñu dinañ génn ci mbedd mi. te feebar bi ñu génnee ci mbedd mi mu gën a tasaaroo kon loolu sëriñ bi def ak ñaax la pour yeneen confrères yi ak yeneen sëriñ si waaw parce que nag réew mi buñ bëggee mu développé buñ jàpp politiciens yi ñoo yàq réew mi man loolu laa jàpp waaye ñëpp ci am responsabilité parce que damay wax ni Sénégal daan nañ wax ni jamono Abdou Diouf ñu ne Abdou Diouf a yàq réew mi Abdou Diouf jóge fi ñu ne Abdoulaye Wade yàq réew mi Macky Sall ñëw ñu ni mag sàll moo yàq réew mi mais loolu dafa yomb trop ñun ñi nga xam ne ay citoyen lañ ñun ban responsabilité lañ am ci réew mi kon réew mi politiciens yi yàq nañ ko seen loxo ngi ci biir waaye citoyen yi ci boppam am nañ ci responsabilité te loolu alquran la yàlla moo wax ni inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla nee na allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes loolu mu ci kaamil bi kon bu ñu naxante réew mi politiciens yi rek yàquñu ko li ko yàq ñun peuple bi dañ cee am responsabilité parce que tey crise bi nekk ci réew mi mooy crise de valeur crise de morale crise yooyu moo gën a garaaw coronavirus <coughs> coronavirus bi ñu wax crise morale moo ko gën a garaaw parce que coronavirus yàlla moo ñu ko indil heure bu ko neexee daf ko fi jëlee mais crise morale ak crise valeur crise yooyu moo gën a garaaw crise détournement fekk lu ñëpp bokk benn nit sàcc ko def ko ci poosam lekk ko mu nekk riba loolu moo gën a garaaw fuufu coronavirus kon coronavirus bi terewut a nit ñi nelaw nit ñaa ngi nelaw di jaamu yàlla ah nekk ci seen i activité xëy na génn rek lañ mënul mais warul yëngal nit parce que yàlla moo ko fi indi te bu ko fi jë bëggee jëlee mu jeex mais crise u Sénégal tey crise u valeur la crise u morale la waaw te moral boobu bu ñu seetloo ci suñu mbokku église bi da koy gis ci ñooma ah, waxuma ñëpp mais man ñi ma ci fréquenté te xam leen gis naa ci ñoom ay valeur ak ay morale réew mi république la ñun ñoo choisir ni dañoo bëgg def république mbokk yi république li tax mu am njariñ mooy képp kuñ jàpp ni yow yaa ëpp compétence rek yaa war a jiitu loolu mooy norme république parce que duñ fal nit ci askan duñ fal nit ci âge duñ fal nit ndax dafa bari xaalis mais dañuy fal nit ndax dañoo jàpp ni moo ñu dàq doxal mais malheureusement république bi dañ koy wax ni rek mais dunduñu ko Sénégal il faut nga yor xaalis mën a ger nit ñi pour ñu ànd ak yow réew mi bu ñu jógee ci jamono xat-xat yi parce que àdduna bi damay wax ni ku ne ku waajalul li ñëw di nga di nga di nga wut suuf di ko lekk parce que àdduna bi day gën a metti tubaab yi wan nañ ni ñoom seen bopp lañ tal tey Amérique wane nañ ni seen bopp lañ tal Chine wane nañ seen bopp lañ tal kon Afrique na tal boppam waaw particulièrement Sénégal tal boppam ressources yi ñu am ci réew mi buñ ko jaaralee normal Sénégal mën na ci dund bay dimbali Europe waaw maa ngi dégg ñu naan dañuy xaw ma dette yi nga xam ni africain yi dañ ko amee wala certains pays africains yi nañ leen ko baal man loolu du ma ci dugg parce que duma ma expert ci wàllu woowu mais man su ma doon FMI lànk lay def mais xaalis bi ñu leen joxoon ana mu xaalis boobu dañ leen ko joxoon pour ngeen def ci ay priorité pour yu mel ni bu amee ñu mën cee résoudre euh, problème yi ah nañ waxante dëgg kon Sénégal amul problème mu xaalis Sénégal li fi ne ci alal nekkul fenn ci menn réew alal jaa ngi ci réew mi mais dañ ko jaaralewul fi mu war a jaar boroom alal yi multimilliardaires yi nekk ci réew mi Sénégal ay milliardaires rek a fi génne leen seen alal ji ngeen dimbali nit ñi waaw réew mi moom problème am na fi problème boo xam ni moo gën a garaaw coronavirus moon loolu yàgg naa di ko wax waaye pour résumer rek sun mbokk chrétiens yi ñu ngi leen di ndokkeel ci seen Euh, feet bi di leen ndokkeel ci ñenn ñi ci seen taxawaay ci réew mi ku mel ni Guy Marius Sagna ku ne xam na ni la église église bi njabootu église bi la kenn ëpp ko taxawaay ci réew mi ku mel ni Barthélemy Diaz kenn ëpp ko taxawaay ci réew mi mën nañ cee cité ñu bëree bari Eva Marie Coll Seck bi fi nekkoon kon ñoom waxuma ne jullit ñi amuñu taxawaay wax day leer bu kenn diaboliser samay wax man lu may wax rek mën naa ko assumer ndax man ci réew mi laa dëkk di citoyen kenn gënuma bokk ci réew mi mais dama wax ni ñoom seen taxawaay ràññeeku na ci citoyenneté ñeneen ñi waxuñu ni defuñu ko de parce que képp kuy mbubboo ni ab jullit nga sax da war a mel nee li mais réew mi nag malheureusement ñiy mbubboo ay turu jullit ba pare nekk ay hypocrite ñoo fi bari malheureusement malheureusement loolu dafa laaj ñu teg ko ci taabal ji bu laajee ñu waxtaane ko parce que critère yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi ni ko ko mel jullit nga moom critères yooyu bareetul ci Sénégal waaw Kriteria yu di ci Sénégal di wax ni nañu delluwaat ci yàlla parce que yàlla moo yor programme am di ko doxal moom rek moo am kàttan lii xew suba moo ko xam kon nañ ko delloo suñu bopp waaw nañ ko muutu xabla an tamutu nañ faatu li jiitu faatu di ñëw ci ñun ñu tuub buñ tuubul waxuma la coronavirus mais yu gën a coronavirus mu ngi ñëw waaw parce que bakkar yu bari yi nekk ci aduna bi buñ tubul yàlla yorna yenen virus yu gëna graw coronavirus wa nañ tub delu ci sunu borom in uridu illa al islah wa ma tawfiqi illa billah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh